li si yéenekaay yi ak Ami Deme Senghor leen du 5 TV yéenekaay yi quotidien national bi la koy dooree Le Soleil du ñu xibaar ni cas covid yokkute bu yaatoo yaatu moo ci am yéenekaay bi ne daanaka gox yu bari ci réew mi mbas mi laal na leen ci week-end bi suuf su àddi ko ca feelu ndax fësal na ni diiru ko ñaari fan rek am nañu téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari cas yu bees yu positif ak ñeent doomu aadama yoo xam ni faatu nañu ci mbas mi Walf Quotidien ne tiitaange bu rëy am ca Matam ndax ci benn ayu bés rek fanweeri cas ak ñeent am nañu ko fa fu Tobine mooy ca pencum ndawi réew mi waaye Abdoulaye Diouf dalal na xel ci biir yéenekaay bi ni covid 19 tëj na baar yi bu wàdd nu wi de spectacle yi critique ne jàngoroy coronavirus bi kay bàkkaar bu mag rek la am ndax rek dogal yi nga xam ne moom la jur arrangé suñu mbokku chrétien yi ndax pag yi wéetal na ko te nag Noël bu amul kado ak communion bu amul xumbaay ak mbumbaay loole la jur waaye monseigneur Paul Abel Mamba di évêque bu Ziguinchor xam nee nañu rek dinañu dëppoo ak contexte bi nga xam ne moom la ñuy dund waaye nag le soleil xam leen ni ñi nga xam ne ñu jëngatu ci wàllu ko aada ñoom dal nañu rek ci kaw njiitu réew Macky ndax xam leen nañu ni dogal ne covid di maire bu Ross Béthio ñu jàll ci politique bekk les échos yéenekaay bi di ñu xibaar si lu ñeer rek dialogue politique bi journal bi ne jëf bu ñaaw rek la ci Macky Sall def waa opposition bi ndax rek si biir dialogue bi la doon waxtaane ak Idrissa ba noppi nag moom li rek ci li tukkee ci dialogue politique boobu la amee ba tax yéenekaay bi ne waa kujje gi daanu nañu rek ci piège u njiitu réew mi ndax dialogue national bi nga xam ni prétexte dong la woon genn ree bu rafet waaye Pape Diop di njiital boo ko gis-gis tëkku na Macky Sall ndax xamal na ko ni ko dialogue politique bi warul nekk rek ay naxe Pape Diop di ñaaw rek lu ñu naan ñàkk xarañte bu état bi wal Walf Quotidien lu ñeel politique politicienne Macky Sall moo nga ca biir ñu jàll ci la Soleil journal bi rek dëgtal ñu kàddu yu Oumar di jëwriñ bi nga xam ne moom moo gàll wàllu collectivité territoriale li mu xam ne rek mooy ville de Dakar amalul benn njëriñ réew mi le quotidien dolli ci ni ngir rek a xóotal acte trois bi Oumar Gueye a lu ñeel jële fi rek ville de Dakar Oumar Gueye nee na dina am waaye ñi fa rek Khalifa Sall ne ko rek du fi amee laas dolli ci ni Macky Sall daaneel na Dakar enquête xëy fësal ni lu ñeel jële bi mu fi jëlee woon rek poste premier ministre bi Macky Sall da ko doon jéem waaye nag amu ci ndam ba tax yéenekaay bi ne moom njiitu réew mi moo ngi xalaat rek ngir delloo si waat poste premier ministre boobu ci réew mi moom njiitu moom njiitu réew mi nag la ñu fekkaat ca laatew bi na mu xam ne ni di Aïssata Tall ba sa Jean Paul Dias a bokk rang ba tax tey rek Déthié Fall def na ab dossier bu rek ci biir yéenekaay bi jëm ci erreur bu mag bi nga xam ni moom la njiital conseil économique social et environnemental daal di def Madiambal Diagne ci le quotidien àdduna si rek lëkkaloo bi nga xam ni moom la ñuy wax ci diggante Sonko ak Khalifa mu xam xamle si ni loolu bu amee Khalifa Sall dong moo ciy loru Sud Quotidien lëkkaloo ci politique ngir rek jot ci capital régional yi loolee jongante googu xar yu yaatoo yaatu dana la jural réew mi laatew bi na xëy ci rek lakk-lakk bi nga xam ni moo amoon ca Espagne yérekaay bi ne ñi si faatu bokk na si ñaari gambien ak benn sénégalais observateur ñëw ci li làqatu ci bébé bi nga xam ni moom fukki weer rek la am te mu faatu rek ca Crest ba nekkee rek ca la si goñ bëla journal bi ñëw ci la tukkee ci autopsie bi libération di ñu si xibaar ni bébé bi autopsie bi nga xam ne def nañ ko ci néewam nee na rek la nga xam ne da koo lekk war a jaar loolee moom moo ko faat ci la ñu ndar keppee li si yéenekaay yi ma delloo leen seen i nopp ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf